gannaaw bu ñu toogee ay weer jàngalekat yi dal nañu delluwaat ci école yi ci juróomi fan ci weeru novembre atum 2020 mu nekk ouverture officielle des classes yi lay jàngalekat euh, ca école élémentaire Bassembo Diandi ak ca lycée El Hadj Lamine Badji bu Djibok foofu nag jàngalekat yi nee nañu pare nañu ngir ñu door cours yi ca fukki fan ak ñaar ci weeru novembre lu des mooy nettoyer classe yi désinfecter classe yi loolu yëpp bu ñu ko defee je pense du am benn problème pour ñu reprendre cours yi. bu fekkee yenn ci ay établissement jàngalekat yi ñëpp teewoon nañu euh, ca lycée bu Djibock foofu nag daal nañ fa nemmeeku ay absent. Wa, ñëpp ngi nekkoon ci poste yi parce que yooyu moom ay rendez-vous la yoo xam ne kenn du ko donc vraiment wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax baax encore une fois ñëpp ñëwoon nañu répondre à cet appel non non amuloon absence quand même. Euh, actuellement gis nañu ni 73 euh, enseignants maanaam euh, juróom-ñaar fukk ak ñetti enseignants ñoom ñoo teew ñoom ñoo ñëw si juróom-ñeent fukk enseignants ak ben bu ñu ñuy doon xaar pour ñu ñëw fukk ak juróom-ñetti enseignants ñoom ñoo ñëwagul. am na nag yenn ci ay bërëbu jàngukaay yi nga xamante ne ba tey ñax baa ngi fa teewul nag yi les responsable ne rek ñi ngi def seeni kemtalaay kàttan ngir rek ñu daal di fa génnee yooyu la ñax boo gëlee lu mel ni génnee ñax mi ci école bi ak yooyu raxas douche ak yooyu loolu moom dépendre ci ñun loolu eh, APE ñoo ko war a def wala boog CGE loolu nag mënuñu ci wax dara parce que gis ngeen ba léegi eh, nettoyage bi des na bu baax a baax. Eh, gis ngeen ni bon commencé nañu di. Euh, dindi ñax bi euh, liggéey boo xam ne bon une semaine mais ñu ngi que d'ici le 12 euh, dinañu pare dindi ñax bi. occasion ci yile appel jëwriñ bu yor wàllub wérgu yaram bu ko respecter protocole sanitaire bi ngir rek ñu daal di mucc ci Covid 19.